maa ngi jéggalu ñëpp maa ngi jéggalu ci kàddu yi may jël ci samay kanamu sëriñ ci samay kanamu kilifa maa ngi sant yàlla mi nga xamee ni may nañu ñu fekke bésu tey bii ndax bés la boo xamee ni yàgg nañ ko xalaat yàgg ko togg te xamuñu woon ni que tey nii lay demee kon ñi ngi sant yàlla bi mu ñu mayee ñu fekkee si ko monsieur le président de la république ñi ngi lay sant ci honneur bi nga ñu defal boole lii nga xam ni moom lañ la joxoon comme cër nga boole waala ci roi du Maroc Mohamed VI ne cër bi kat du ko jël man kenn dama koy séddoo ak roi du Maroc ñun ñaar ñoo koy bokk présider la tax ma di ko def mooy diggante Tivaouane ak Fès mënuñu fee def dara te boolewuñ ci roi du Maroc kon nag ñi ngi sant yàlla bi waa Maroc ñëwee ànd ak seen ambassadeur ànd ak le président fondation bi ànd ak euh, shérif bi nga xamee ni moom moo jiite euh, xadara bi nga xamee ni moo nekk xadara tijaan bi nekk à Fès kontante boobu ñun amuñu sa pay ñu ngi lay ñaanal yàlla di dalal sa xel gis nga président gis nga El malik amul moroom du moroomu kenn dama ne Seydi Hadji Malick du moroomu kenn ay bindam buñ ci toppee buñ ci toppee laa wax kenn dabu ko ci bind li mu bind ci àddina amul kon nañu topp ci ay bindam rek te bàyyi yi ci des bind yi rek laa wax na yem ci bind yi rek kenn bindandoo wul kenn ci àddina kon dañuy sant yàlla bi nga xamee ni cent bi jot na defuñu anniversaire la dañu ne la mu daan jàngale la ñu bëgg ñu génnee waat ko xale yi xam li mu daan jàngale lu mu doon ndax la mu daan jàngale daf ci am loo xam ne ay mag la ko daan jàngale ñuy génn dem di ko jàngale ñeneen ci yeneen i gox jamono moo dox ba toll heure bi ñu toll heure bi ñu toll nag jamono jooju dafa laaj communication communication boobu moo tax ñu ne nañu indiwaat la mu doon jàngale pour xale yi gëstu ko xam li mu doon jàngale bokkul ak kenn jàngale ndax moom àddinaam yëpp daara la ay daara moo tax ma fonk xale yi xale daara yi bu ñu leen fonkee looloo tax ma fonk leen ndax dama gis ni jàngale rek la daan liggéey kon xale yi nga xam ne nag ñoom ñoo ñëw pour jàng te jànguñu lu dul xam-xam xam-xam rek moo leen tax a jóg looloo tax ma def leen seen ma def leen samay doom man maay seen baay li ci des mooy lan la tegoon ci loxo mooy alxuraan alxuraan danaan wax naan bu sa doom juddoo boo amee doom mu juddu balaa nga koo def dara wàcceel ko kaamil danaan wax bu sa doom juddoo balaa ngeen koo tudd wàcceel leen ko kaamil ba pare ñi sant si xam nañ li may wax ñoom ñëpp kenn du ci tudd te wàccewuloo kaamil sa doom ba pare ku génn àdduna nag dañ koy wàcceel kaamil tamit wàccee kaamil ci ñi jóge àddina farata la lu baax la lu war a nekk la ñi ko xamul nag xamuñu ko lu leen neex ñu wax si ñoo xam mais ñun dañu gëm ni ko képp ku génn àdduna wàccee kaamil dara gënu koo nekk farata kon nag ñiy wax te xamuñu te jànguñu nañu toog seen place ku jàngul da ngay yem ca ña jàngul ñun dañuy wax ne dëkku Age Malick bi lañu ñu bëgg ku ko defar ñun loolu rek moo ñu fi tax a nekk maire leneen taxu ñu fi nekk maire defar dëkk bi nawuñu ci dëkk bi pour fi dara ñii ma nekkal àndandoo ak ñoom ci politique muy ñëpp man duma kenn si politique muy jaañ ci mbeng muy ngalgu muy euh, nu mu tudd Abdou Ndéné muy sey Seynabou muy képp koo xam ne yaa ngi politique bëgg dëkk bi rek mën naa ànd ak yow mais nañu wax dëkk bi rek bu kenn wax sa bopp bu ñu waxalee suñu bopp rek dëkk bi dina avancer te ñu man dëkk bi moo ma yow nag ñu ñëw la tànnal suñu bopp damay wax ne man dama far man nëbbatuwuma dama far te ku ànd ak man day far dama ne man dama far te yéen yii ma àndal da ngeen a far far ngeen wala faru man ku ma àndal day far man xawma jàppantu jàpp nit day jàpp benn yoon wala moo bañ jàpp ñun dañ laa jàpp parce que dañ la jàpp parce que li sëriñ bi wax suba rek laay dëggal da nga yaru da nga teey da nga am njariñ danga baax kon nit ku baax dañ koy jàpp ñun nag gëm nañu li nga xamee ni moom la kër gi am ñu li kër gi am lañu am amuñu leneen te li ci kër gi boo ko xasee ba téye jàppal ni ñàkkatoo dara boo ko doyloo loo bëgg ci àddina am ko loo doyloo li ci kër gi lu la neex nga am ba keroog mu lay neex laa wax nit nag day am foo xam ne bu fa xasee ba toll dootul mën a wax waxuma waxu politik de ndax man waxu politique waxuma ko tey bu ëram jotee rek danaa ko def mais dañ lay sant parce que cent ans El Hadj nga xam ne œuvre ak lii dafa am loo ci def nit ñi ngi naan li ma ci def li ma ci des yaa ma ko jox amul kenn ku ma jox ko dul yow dama ne benn loxo fekk siwu ma si yow kenn du ne maa ci def dërëm bu dul sa xaalis yow dama koy wax ñëpp dégg ko que nag ay nit booy ànd ak moom bu la defalee teraanga da koy wax heure bi nga ko war a waxee ak fan nga war a waxee man gëw ma ni defal ma teraanga ba pare ma noppi ko yow kott yaa ma jox li nga ma jox yow dong amul keneen ku ma jox parce que nag nit nag bu fekkee munoo sant ki la defal teraanga bay boo nga bàyyi lii ñu def nii yëpp ak li fi xew yëpp ci yoon rek lañ koy teg en tout cas ñu ngi lay sant di la gërëm di la wax ni li nga ñu defal rëy na defaloo ko tiyaawoon rek communauté Tidiane yëpp na ko defal ndax ku fonk Alaaji Malick ñu fonk la ku fonk sëñ Babacar ñu fonk la ñun amuñu lu dul sëñ Babacar ak Alaaji Malick ku leen bëgg ñu bëgg la ku leen baax ba jàpp ñu jàpp la asalaamaaleykum maa leen di gërëm